salaamaaleykum askanu Sénégal salaamaaleykum waa àdduna bi ñëw rek pour indi benn leeral ginnaaw bi nag affrontement bi nga xam ne am na Ngor entre ñu nag gendarmerie mu nekk lu la ci lool ba finalement état bi démb recevoir na ce palais di kii fay dëkk bi bon loolu di leen si ñëw après wax leen li nga xamante ne moom leen fa jëlee léegi information bi nga xamante ne moom la ministre de l'intérieur génne tey si suba di wax ne xale bu jigéen bi dañ koo fekk euh, euh, si si si euh, mbar ñoo ko teeral mbar yi ñoo ko teeral Elise moo laal bopp bi finalement mu dese rek yooyu yooyu ki la wax information boobu amul ki la wax information bi amul demewul noonu vidéo bi nga xamante ne bi gendarmerie bi génnee xale bi bi gendarmerie di génnee xale bi ci ndox mi am nañ vidéo bi blessure bopp bi blessure bi nga xamante ne moom la am si bopp bi nekkul lu dul ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko génnee te looloo tax ñu lay exiger à ce que ñu def autopsie pour ñu mën a xam vrai vrai vrai mais Élise laalu ko ndaxte période boobu gaal dawul gaal dawul yow ba génnoon wax sax wala boo kii la ko wax bala waxoon ne xale bi dafa noyé. loolu sax mën naa neexee dégg parce que xale yi benn instant dañoo dugg ci géej gi pour rawal seen bopp loolu sax baa ko waxoon wala boog ki la informé ba ko waxoon sax ñu ne ah kon de seen yenn mais gaal moo ko war Élise moo laal bopp bi loolu ki la ko wax amul. ministre de l'intérieur ki wax information boobu ne noonu la dee xale bi deewawul noonu incha allah di leen si gën indi ay leeral si kanam bi soob suñu dama doon génn pour dindi information bi nga génnee nii. di ko ngeen di def si bëpp sénégalais yi demewul noonu demeewul noonu xale bi Élise laaluka Élise laaluka gaal laaluka nekk sa gaal jaar woon foofu di leen si ñëwaat ci yeneen vidéo incha